di wax waaye ñu ngi kontaan ci sa liggéey ndax daaw toog nañ may la évolution sociale dafay jafe dafay ànd ak kenn xamul waaye yàlla baax na bi ñu ko waxee xam nga ko ba teeru ko ci xeweñ ba leen waroon a indi ci lore yàlla baax na àggu fa yal yàlla yokk leen seen taxawaay yal yàlla yokk leen seen dëgër yokk leen xeweñ yokk leen xam ne responsabilité yi yàlla teg seen mbàdd ngir ngeen sàmm nit ñi te nit ñi yéen rek la ñuy déglu ñu si déglu yi dañuy déglu rek pour waaye nag lii doxal réew mi nag moom yéen yéen a ko représenté ci nit ñi donc ci yéen la ko nit ñuy xoolee kon ñu ngi yaakaar si yéen yàlla dimbale leen may leen xerañte may leen dal may leen fit may leen fit ba nga xam ne yi xew yëpp mën nañoo nekk nawleem parce que boo nekkul nawle dara da nga koy ragal waaye boo xamee ne xew-xew yëpp jafe na jafe na jafe na waaye nit la parce que nit yàlla bindu puñu di ko noot waaye moom mooy noot xanaa mu noot moroomam waaye nit moom amul dara loo xam ne mën nga koo noot lu nekk rek mën nga koo noot bu la yàlla boole la ci loolu doole boobu boole la ci xel boole la ci xereñ nga xam situation yi ñu toll xereñ rek la laaj nga def ko nga def ko vraiment que maa ngi wax soxna si ma ne ko boo gisee président boo gisee monsieur le ministre nuyul ma ko ne ko maa ngi naaw xeweñam ndax jafe na jafe yoo xam ne ku nekk tiitoon na waa amutoon xerañte bool jëflante bon mun naa am dëgg dëgg dëgg Sénégal ba tey mu ngi métti moo tax ñu ngi leen di ñaanal yàlla yéen yàlla doole leen kàttan doole leen mën-mën doole leen fit ngeen ñemee taxaw taxaw réew mi taxawaay boo xam ne intérêt Sénégal yépp la parce que Sénégal yëpp ngeen fi nekkal ku juba ku jubali yëpp ñoom ngeen fi nekkal wante yàlla mi nga xam ne moo la dénk nit ñi nag yàlla moo itam del du leen bàyyi al fukk mu jox leen lu ngeen mën a téye nit ñi ci lu nekk ci maanaa ak matière yëpp yàlla dina leen ko ngeen amee ko ñi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen ñëw fii di ngeen fi ñëw ci barke yonent yàlla Muhammad yenn yàlla feeñal ci yéen barke yonent yàlla Muhammad yenn ko yàlla feeñal ci seen liggéey yal na ko yàlla feeñal ci seen taxawaay yal na ko yàlla feeñal ci Sénégal yëpp ndax Sénégal yëpp bëgg yonent yàlla Muhammad bu gàmmu jotee Sénégal yëpp gàmmu gàmmu gàmmu gàmmu rek ba gàmmu passé ñu door a wax leneen loolu yëpp tegtal na Sénégal bëgg na euh, yonent yàlla Muhammad yonent nag nee na boo ma bëggee ma bëgg la boo dajee pour man dina ñëw loolu yonent wax na ko wan nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee ne ñoo suñu gouvernement ak suñu responsable ñoo ñëw bokk ñun ñëpp ñoo ko ne leen jàmm am na mbaax am na yiw am na yal na ko yàlla yokk yal na yàlla yokk mbaax yal yokk yiw yal yokk yëkkatiku yal na dimbale Sénégal te boole ko ci réew yi nga xam ne kawe nañ lool àgg nañ fu ñu war a àgg yal na ko yàlla def ko ci seen loxo parce que njàngale moo ëpp euh, njëriñ ci xuloo ak xeex ak defante ah yal na yàlla dimbale leen kontaan nañ bu baax ñu ngi lay encore waxati bismillah sa kër la sa njaboot la ñun ñëpp ñu ngi ci sa ron parce que ministre de l'intérieur ma ma di dama ne ko demal mu ne ma déet ma ne ko mu ne ma ñemewu ma ministre de l'intérieur ma ne ko boo demee wax ko loolu ne ko ñemewu ma la waaye nag soo mag moom wax naa ñëw def <laughs> na yàlla dimbale leen jërëjëf incha allah